salaamaaleykum man Modou Lo maa ngi jox ñëpp rendez bu diggante Xoyantaan ak Baye Mandione ci Gambie ah. mu ne tël Gambie jàkkaarloog moom dina xam ne golo golo du golo du kañe de. yow yow xamoon nañu woon simb gaynde la dama lay laaj rek yow xamoon nañu woon simb ba léegi da koy ah déet xaw ma di jaar na ci di. man xamal ma ci intéressé na taxaw nekk doom aadama rek en tant que loxo noor bëgën baal bët gémmi leneen li ci des ay détails rek intéressé wu man xam nga lan laa xalaat ñu bëree ba pare mu ñëw faama. Lamine arbitre soufflé na Baye Mandione góor a soog Baye Mandione droite Gora Sock gauche ñu ngi lewaatoo eh fii ci Ndar tey la samedi 14 juillet ci Lutte TV point com fi ngeen di xoolee làmb kese kese kese dong eh xalaat naa ñu xeex ma Baye Mandione a Sock Lamine bu ñu xeexee dina tar na metti ñaari ponkal lu leer nga wax lamin fii ci Ndar dëkk suñu papa Golbert Diagne gis naa ko fi gis fi Baba Bay gis fi Fata bu CBV ba won cey loolu gis fi Modou Lo Papa Sow Yékini Senior waaye laay pythagorique seen naa ko fekk Ibou laay bu xarañ lu góor a soog dugal na góos góor a dugal na góos jiital tànku góos dugal góos bàyyi ma ñoon jiital tànku góos dugalagul moom ee eh, Lamine ci Lutte TV point com Lamine ñu ngi lewaatoo di xoolante saan ñaari mbër yooyu waaye loo ci mën a dégg géew bi ndaw na par rapport ak géew yi Dakar yi géew bi tuuti na de te suuf si bariwul géew bi dafa tuuti lamin Lamine Gora Sock nga parcel lamin Lamine Gora Sock ci victoire bu rëy la jóge diggante ak Cobra bu Pikine mbooloo jël bu la ko daan fi nga xam ne nii mooy stade ba maar Diop bàyyi ma njoon ci defal la jóge digganteem ak Modou Anta ca Thiès Pape Tali Sow ak Leewtoo ko tëggoon waaw loolu lañ mujj ñoom ñaari mbër yi boo xoolee ñoom ñaar ku ci kii ci ndam la jóge kii jóge ci defet góor it gis nañ ko ci mbapat yi léegi mooy rang di bëri des fois mu dem final des fois ñu éliminer ko waaye noonu la xale la da caa toll. waaye bàyyi ma ñoon itam dey bëri naag mbër mu ne de laalante naag Papa Sow laalante naag Sulay Dop laalante naag Basoka laalante naag ki nga xam ne mooy Babacar Diallo bu Faas laalante naag Jili Mbay laalanteeg Modou Lo kookoy Baye Mandione dafa pang doomu ragal te mën naa bëre te fët wërëy na góor xale la boo xam ne dem la bëgg ndax Baye dina ko ko may walla déet loo ci mën a dégg ñu ngi lewaatoo daman tey baaram lamin nga ne Zil waaw Zil ñu ngi koy nuyu borom marché seng Zil Zil bu marché seng zil nee na daf ñuy jox ay tisi maag Lamine cey zil yàlla na sa jàmm yàgg waaye rim ka kutir ca Touba Sandaga ñu ngi waaj ak moom lu rëy Karim borom Touba Sandaga troisième étage du ma ko fàtte sama doomu ndey la Karim boo weddee li wax laaj ko jibi xam na kuy Karim saa yu ko ñawlee li réew mi dar seen gémmiñ waaye loo ci mën a dégg ñaari mbër yaa nga ca góor a Baye ma tey daa mel ni yàkkamtiwul de Lamine góor a dugal na góos waaw loolooy problème bi de Baye de fi mu ne nii xaaram bu yàggee boo ñëwut mu ñëw jikko gaynde googu ñu koy wooyee la lion de Thiaroye waaye jikko boobu la yor bu la tëroo ñëwoo fi mu soxla mu fekk si la fi mu yaakaar ne fu la fekkee def lim la war a def moo tax waaye loo ci mën a dégg ñu ngi lewaatoo taxaw de. waaw arbitre day wax ak ñoom dañoo war a daje lamin nañu daje ñaari mbër yi Lamine ñaari mbër yi dañoo war a daje lamin waaye lamin suba jax sa jomi ba Mar Diop Mamadi Ndiaye école de lit maa nga deux Zambala bu Boy Niang kenn du ko fàtte jax suñu xarit boobu moo ñu jëkk a décoré ci lamb waaye di nuyu promoteur yëpp nag rawatina seen président Pape Abdou waaye remis de remise des clés bi ñu war a def le 22 juillet arène nationale bi ñu tabaxal président Macky Sall def ko Lamine waa Lamba am nañ arène am nañ arène bu ñu moomal seen bopp wala boog lañ ci am cib cir bëri na boog ah yaakaar naa ñoo ko moom de parce que arène national moom fu ñuy bëree la war a doon laa foog. eh drapeau Mansour Faye la baay mi ñu ne Gora Sock di bëre meeru Ndar ak jam production di doog a door tey ndaysaan waykat beneen bismillah yi dañuy soog a door war a bëre buur géwél buur fii kenn du fi naxa saale buur naxa doxul buur avertissement baay ma njoon avertissement Gora Sock pour non combativité Lamine eh nañu bare ñaar ñii dañoo war a bëre Lamine déedéet leen bu leen fi nekk mukk di lewaatoo jëmale bu kenn xamul faw ngeen defante ñaari mbër yi nañu bare Eh, jël na ko Gora Sock jël na ko Baye Mandione Baye Mandione Gora da koo bëgg jël jël na ko fu ñuy mujjee daan na ko doole doole Lamine oh, lamin yaram daw na lamin doole Lamine doole oh yaram daw na lamin lamin xoolal lii lamin lamin xoolal ma géew bi Lamine lamin Lamine xoolal ma géew bi Lamine oh quelle tristesse da Baye Mandione ndeysaan Amet dem jël si na ko oh la la Lamine ay ma ñoon oh may ndeysaan lii daw na yaram lamin daw na yaram daw na yaram oh la la oh la saan def na li ko war lépp ci làmb lii mooy làmb ndeysaan àddina jeexul de bàyyi ma ñoon làmb jeexagul déedéet yàllaay teg jàmm rek bàyyi bul découragé de déedéet lamb jeexagul bàyyi bu la dara metti def nga li nga waroon def jël la ñëw bàyyi ma njoon lii mooy àddina ndaysaan déedéet borom jom la borom fit la ndaysaan muñal rek gaa yaa ngi koy encouragé la oh la daw na yaram lii daw na yaram. tànk càmmoñ la jiital turbo tànk ni joor dër nañu ñoom ñaar pour bëre Turbo gëdd na ko ci selo dellu ginnaaw waaye mais tirbo tirbo day day day gëmm buy riñaan bu la ji xoolee du baax ah looy def danga ko war di xool ponkol du làmbatu ponkol danaan ba xër ci li muy wuti Thierno Cissé ñoom ñaar dañuy moytante bu baax a baax kenn ñemew ci marom mi lu mën a am nag mën na am waaye mépp rek sa marom moytu nga taxaw yow mi mépp defoo kii moytu deful des na ah yu ndaw yee neex seetaan nañ ko dem bëri fi am ñoom nag mën naa mu sotti léegi bëre waay bëre waay. Turbo Cicelo kenn nangu ci jël responsabilité ci ñoom ñaar kon nu muy sottee dañu ragalante ñoom ñaar mën nañ bañ ragalante xëy fonk bis bee kenn du bëgg a daanu waaye de bu ngeen mu am ko daanu am ko daanu. bu yàggee ku sonn daanu. Cissolo Cissolo takk na ko Turbo tëgg na ko mboot mu takk takk na ñu ñoo nga ci suuf ñoom ñaar Cissolo Turbo Turbo daan na ko jël bu rek maa ngi jox ñëpp jiggante xoyantaan ak Baye Mandione ci Gambie ah. mu ne tël Gambie jàkkaarloo ak moom. dina xam ne golo golo du golo du kañe de. yow yow xamoon nañu woon simbu gaynde la. dama lay laaj rek yow xamoon nañu woon simbu na. ba léegi da ah déet xaw ma di jaar na ci di. man xamal ma ci intéressé na taxaw nekk doomu aadama rek en tant que loxo noor bëgën baal bët gémmi leneen li ci des ay détails intéressé wu man xam nga lan laa xalaat ñu bëree ba pare mu ñëw faama